alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala bi la nga kóllëre euh, jàngal nga ndaw ñi jàngal nga jigéen ñi jàngal nga ñépp waaye fi nga ko jëlee itam soriwut ndax mooy kooku nga xam ne wax nga ñu ne boroom yi yépp dañ doon làmbatu waaye moom rekk moo daj mooy Mawlana Cheikhul Islam Hadj Ibrahim ndax fi nga waxee ne gaañoo ñu nga xam ne sëñ Baye Alaaji Seynu ma ngi ca biir nga tudde leen alfuqaraau ilallaahi ila rahmatillaahi foofu danañ la ci gërëm bu baax a baax a baax ndax tey jii yërmaande jooju nga xam moo la fi indi tey muy mbub mi nga sol ak fuyoodaat yi nga fi sotti yépp yaa ngi ko tibbee ci jotaay bu rëy boobu nga toog jotaayu kursiyul tafsir bu rëy boobu nga xamne mom la sa baye jangalat nabi yeb ne yonent bi lim fi ut won moy wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yermande jojo suñ baay alaajoo seynou ci la ne woon waaye moom itam boo gisee fa mu ko jëlee ku mel ni suñ baay Mamad Zeynabu nettali na ne bañ ñu bàyyi alaaji Babacar génne àdduna bañ jox ñu baay baay dafa génn ci perong bi bi muy fekk ñu tegal leen lekk mu dugg di beesal njàpp génn fekk bool bi jeex mooy leen yéen ana bi ñu ne ko añ nañ de mooy leen déet yéen añu leen daldi yónnee gàtt ñu afra ko indi tegal leen ko mu tiim leen ñu lekk ba suur ñu soog a yëkkati foofu moom jàngee na fa te mokkal na ndax kooku nga xam ne mooy rahmaatullahi fil ard yar ko yar bi mu ko yar ba mu génnee dem baay moo gënoon a xam ne alaaji Ousseynou dana ñëw waaye daf doon jàngalehaat beneen yërmande jàngalehaat kóllëre gi nga xam ne moom la ñu sëñ yi doon jàngal tey ndax koo xam ne ba muy dem jox nga ko baat yoo xam ne ba gaal ga tojee ñépp suux mu des moom juga kebe mu ne juga kebe la nga amul ci suma tànk yi wax baat yi ma bàyyi waxoon te moom waxu ko parce que booba moom mooy jëmmi baat yi kooku xamoon na ne dana ñibbisi waaye baay bu jógee fii di dem ba Sierra Leone mooy li tax sëñ Mahi sol manto bii tey ñëw fii di ñu jàngalat ñun kon ñun itam war nañoo góorlu jéem a dégg dars bi ñun doom yi sëñ bi wax nañu benn baat mooy ne mbir mi bëgg na mu ëpp nii te nee na kóllëre gi bëggut kenn uruj sas wu rëy a ngoog yërmaane jooju nag sëriñ bi euh, comme ni ngeen ñu ko jàngalee bu fekke ne dafa yaatu yaatu go xamne ne yonent bi sax laaj na jibril nako yow man yàlla daf ma yónni ngir ma nek rahmatan lil alamin ndax am nga ci sawal wàll mu ne man foog naa ne maa ci eppele mu ne ci nan mu ne ko bi yàlla binde adama keroog la tit titange go xamne ba yàlla yónni la dir bobu yeb maa ngi tiit ma ci genné mu ci nan mu ne bi yàlla waxé ne nañ sujjootal adama benn malaaka bi dàqoona sujjóot dàq jaamu yàlla yàlla teg ko natt mu bañ muy iblis mu jël ko teg ko ci rang gi nga xam ne mooy rangu ma seytaane yi gën a bon war a njëkk safara war faa mujj mu ne ko keroog laa tiit parce que yàlla moomu kenn du óolu pexeem te man maa ngi ragal ne danañ ma teg natt boobu bi sa yërmaande ñëwee nag ba yàlla yónni ma benn aaya di quwwatin inda dil arshi makiin keroog laa soog a am kóllëre kon rahmatu jooju nga xam ne yow itam ñëw nga pour jàngale sa ko fi ñi ngi ñaan yàlla déggloo ko ñi ngi lay wax jazakallahu anna kulla xayrin yàlla na yàlla bàyyi la fi bàyyi fi ñëpp tey bàyyi jiital ci xalifa bi ak mboolem kàngam yi ngi fi tudd te beral la ci cër comme ni nga beralee cër Mawlana Alxaaji Useynu ak njabootam fa jazakumullahu naa kulla xayr Kebe bàyyi bara amma bam fa boo la sanci daggamaali génne caana baga ka bar suubu biir géej bara amma bam fa boo la sanci kër samba tug du fug lu siidi mu nga ñaan ci yàlla ak yónneen bara amma haatif ban ko fekk kët samba nan ko ajji habdu seydi wey na demal bambuk bàyyi bara amma haatif ban ko fekk kët samba nan ko ajji habdu seydi wey na demal bambuk bay bara amma keroog ba mu wàcce biir bambuk dal di fetal noon ya rammu ñële ñaamu tuubal bàyyi barahama xaati ban ko fekk kër sàmba nan ko ajji abdu seydi wey na demal bambuk bàyyi barahama na keroog ba mu wàcce biir bambuk dal de fetal noon ya rammu ñële ñaamu tuubal bàyyi barahama lang cundi mbal ga jàpp na ñasan bàkku leen maam aji ñas ba na fi mbër bàyyi bara am ma ne maam aji ñas mbal ak njàmba ngi mbal nga jën wu mag wi yaa ñoo traité ci meya bàyyi bara am ma jël jële xataari billaayi kenn du siidi bara am ma dinkiling bambura naani bàyyi bara am man a doomam xalam bu lëg lekkee booba yàlla coy la maam li ñi jagle duul luñ jëf bàyyi bara am ma ji kañ sang ko ku mu tooña ndoxam nen du forox jàngi leen yéen fuuta yi riiruug sidi bara am ma leer jant ñiy dox diggam mu ne duñ janoog moom bu fajar xare war nañoo dee gaañe bara amma leer ak jant dox digg muul na duñ janoog moom bu fajar xare war nañoo dee noni bara amma narab gànnaar bi doon jaay maqaama ibnu maayaaba da ko tiiti ruusi kaamil noni bara amma dañ ko tontoŋol daane ko ca mbedd mën naan ko uxruj génnal kër gi yow mi bañ seex noone baraha mën a ñàkk teggin tegge aljanna torox na taxalku martabaab seex gaaw na koy dal noone baraha ma laana laaw ibnu maayaaba mi di noonab seex yal na lab gii ji wéylun noone baraha maana ëllu lansar yaa nga kër ma jibel ñoo da roose ngeer habdu bi gee gëm na yónne na sidi bara am maane habdu biiga kër ma jibel aka jeex ci baay moom maddo mboo tabee moo gëm sidi bara am maane maam aji seyna bu yaaram bi xaarif bi yaa taxawu nga min ko suñ baay sidi bara am maane aalim la aarif la bara ma ko seede yal na yàlla jox ko ngërëmal sidi bara amma yàgg ak bant ci biir géej du tax mu nekk jën maj su bi xeexu leen gëm leen sidi amma na yàgg ak ci biir géej du tax mu nekk jën maj su bi xeexu leen gëm leen sidi bara amma képp ku la bañ iboo ngi ci xeelam lu mu digg moom la bu ñu dajee duñ ko jàddal noone baraham man duma ko nuyu duma ko jox loxo yow ma yub xasuuna yàlla buñ fa dajee kuy bañ sidi barahama buñ fa dajee bon ma tampon ko bam daanu jaaxaan ibrahima juuf sim na kuy bañ sidi barahama la taqafa wala tasanu inna la maana xam ngeen ngënal gaañi xàndaga sidi bara amoon na leen di ca setteer weer wa jàpp ca kaw asamaaw guddi keroog doy na kiimaan sidi bara amoon na mu ngi fekk ci biir jumaa ñu ngay naafila kaamil ba ngay di ak boromam sidi bara amana bàyyi na jàkk jibloo mihrab ba dégg téléphone ba daldi kàddu na yu min ka sidi bara amana ba ko alxamru bàyyi weer wi jàpp nañ ko léegi bàyyi boo ca waxut dañ ko fermi Bara amana bara mangana Osman Jang Yenil Weru Japun nañ ko sikar leen jangi kami. Sri bara amana sering Elu Sisi bëkku néegu fardu Jami O Bayan na Jangi jàngi Sri Bara amana magi pey ba kami kaamil Si cakar gaya rambang gai diak baramam Sri bara amana bara mangkonan Ya Rabbi Ya Waidul koru jeggalar sa jambi mudam Sri bara amana Jibril langkonan buri Allah Billahi dula dello nanti yow sa ñaan du ma bañ Sri bara amana Jibril langanan mikaayilu jóg leen gaawi ceen gi bur bi yàlla nii na ñu rus sidi bara am mana jibril la nga naan féej bara maa dox ci suuf si yaari tabax yi duñ tappoo sidi bara am ma ndax yàlla rus na sidi bara ma ñes ba jamanoom du ñaaw du ñaaw ñaaw ca asal asal lañ ko tànnoon sidi bara amana nagu naan kër jëñal sa wuy wa xamru samaawaati bañ ko tijjee dox ba gaaw na sidi bara amana gëm leen yàlla te gërëm dogalam yi ñun ñuy tuddoo bàyyi la jotoon ñëwee jombul ci ñun sidi bara amana fu train ba jaar wa dox fa selleen ci baraama ku jublu yàlla warta gesoo Sëriñ Bara amal yàlla def ci jaam loola gën bu leen fàtte yàlla bu mu nu jubi fajar xar na gaañe bara amana hopp ak war ak dund ak dee ànd wutu wante nañ di gërëm jëfi yàlla Sëriñ Bara amana suñ jëmmi trois bi yëttu ji feej ñu nga moom ci dun bi baatab kunda wàcc ci ñun Sëriñ Bara amana muñ leen jalaal moom la ñooy xàmmee mbindee fi gëm yàlla ca la bay da bara am lu métti yàggul xeena mosta mat ci jàm bu gëm yàlla kulla yawmin huwa fi sha'nin noone bara am mana yaa waay dun xahóoru kii bur yàlla kadim notaa kun lépp ne kun loola man na gaañe bara am mana bu bee jalaal mbaamu kun jamaal lépp dafay teew mayag yàlla xamul doy na sidi bara amana lënd ja ca katriir jumaay sidi bara ma takku sanja jas gaay sidi bara amana jili nañ ba pare bàyyu ne seydi ali siise bëkku néegu pey ba na ñëw sidi bara amana kaamil baa nga dambu fa salba hëtëf yaa nga kàddu ba hoppi yi mulkul alaang siri bara amma na dëri laaj na boromam la ca jaam fardul jaami on bi doomaas siri bara amma naan fokk ngeen joto mooy suñ sawel taas moo loolu moo say musol say doom siri bara nañu joto danga ñaanal leen mu def sawel taas yow say ñaan du dégg ma bañ siri bara amma na seydi jaal ma sa mag ja bay aji Babacar de Siddiq dem na xeli Sidi bara a man a doon takkoon doxal maa ngi ñëw ndekoon daa ko jooy mbay mañ tuddee mbayam yónneen Sidi bara a man a bu doon jotoo ma daa xar ma jotoon Ismaila Aboubacar gëm na yónneen Sidi bara a man a bay aji Babacar ñas kaw la ibnu abdalaay yal na yàlla taf ñu ca moom sidi baraama na samedi ja ci timis mbaye ngay tàggu sidi baraama parel mbir mi gaal gi mbir mi man naan sidi baraama na mbaye ko naan gannaa suma bakkan lay dénk lépp luñ may tuddi na nga ko garde sidi baraama na yowmal qiyaamati buñ fa dajee keroog pencum yàlla sama njaboot yow laa koy laaj sidi bara am mana bara am man ko naan dëxal naa la yow yu basuuna buñ fa dajee du ko rëccu sidi bara am man du rus fa kanam bur yàlla yaa sa njaboot lépp teewi xeliina sidi bara am mana bara man ko naan sa njaboot képp ku ci ko jànguloo ji quraan sidi bara am mana daa leen leetar ba yàlla bindoon na bi naan ko nan ko jotal saw sidi bara amana bay aji Babacar bam faddoon barama ko jiite mu jurugo jox ko boromam sidi barahama baqaasi wuree mbay ca biir kër ga ba jëm fa baabu ba bisub keroog xemem naa de sidi bara amana askana wan ko wër di ko gërëm bara man koy tagg di ko seddeel malaw daala siri bara am mana bara am jàngal xam si yëba moom ak alaaji mamat seyna bu ñas ñoo doon jàng xam si yëba siri bara am mana bara am man naa sappe leen borom ngir mi ñëw na ba hoppi yi heliinam sidi bara amana mbinde fi ne bare sappendoor an qaawu maghrib bi jublu penku sanni kabar sidi bara amana babaay di sëlman la naan fab leen ko tanaa sikkar leen ñu gunge mbay mi jox ko boromam siri bara amana ba ñu àgg mbay ca buntu pax ma jibril yëngal la fee sunuy pii heliinam siri bara amana jibril la ko naan makka pareel saddiq ñëw na heliina tey ñu xam gan sidi bara amana yónnante ko naan de ana jibril waxal waar janaada nañ ma fa ndambul la sidi bara amana jibril yëngal junney laafiya naaw ca alamul xaybu kër gu ne mu sànni leetar sidi bara amana góor ak jigéen kenn du fa des ñëpp la ñuy woo wata nañ fa ndambolan la sidi bara ama alhamdulillahi sil qidam man ki xamut te bëgg Maju jog da kañ ka gëna xam barhama ñass yow yaay ngalam soppe ma ngi sakku ñaan bur yalla dakal ñu ka ñaan aji hanya safar da ñaan mom bur yalla dakal ko ka ñaan julil ma ci rasul wali sawil udul وسبع لهم البطول في كل معنى كمول برهم نس يو يا انغلام تبك نيرم اكتوام sa kàddu neex ba mel ni lembaay yow yaay ngalam yow yaay ngalam baay fu mu juddoo tey ba ña fu mu yaroo ca kuusi baay ñas ku ko jàngal baayam la moom kon tey ba yaada mànga siin yowmal xamis ca takkusaan koowaa dal di mel ni saan malaaka yaa nga sappe naan subhaana barhama yay cosaan yowmal xamis ca takkusaan Fukak jurum juróom manan mudib rajab wakai bu wakal nyokau sufai fanan hatum juna fanaan gadai junna gannaaw gàddaay yu fan yu niiwu nasot naa sot takai, la xam takkaay mu bila mira wala labas. xarnu yaddin bi yaa ko tasbaayi barhaama yaa da xaw si ahmadu jógal taw na ba tooy muusa jógal taw na ba tooy takkal masin yi fas yaa ngi jooy ngir bëgg a sa tool du booy bay sa tool du booy sa tool du booy ndax mu takkal ma ay garaat may ma ndigal ma jóg jiyaat xamal ma lan lay doxaati ëllëg ana ban ay rapport lay wàcc xaat bay dolli ma ndax ma wéy la yow yaa koy joxe ba tax mu law ba tax mu law nekk di law ëskey barhaama yaa fi xaw sa tur wi moo da Abdalaay waaye loolu ca ësal la hoon bi laay nga wàccaat fii ñu naan la bay ñes ngay doom di bay ci Abdalaa ni mu wegoo la lewete tooñ ko taxul mu di jotee kas ko itam mosulate soo haajoo sedd la da daan baleek jillale ñi fii waloo mooy jubale te ak tabeem daay matale soppeeku noon ku tedd la ni mu wegoo la tooñ ko taxul mu di jotee kas ko itam mosulate soo ajoo mu sedd la da daan baleek jëllale ñi féewaloo mooy jubale te ak tabeem daay matale soppeeku noon ku tedd la raw na ba raw na leen ci taar baatam bu neex ba raw gitaar te ay waxam daay wuutu saar ngir lu dëppoo quraanu la raw na ba raw na leen ci taar baatam bu neex ba raw gitaar te ay waxam day wuutu saar ngir lu dëpp quraanu la maam astu jànq yaa gore maam astu yaay ñayu xare yaay ka mu ba jooy ware looloo waral tey ñoppure maam astu géeju mbambulaan ndoxam neex naay walangaan jigéen ñi roy tey dagaan ci moom seeni bagaan maam astu jànq mooy kënu balam ya moo dem ba kënu toj xoli man xat sëkkënu ba kënu soxna say kenu maam astu jànqay geluwaar matal na mbuule mi dawaar mbiram mi tolla raw na waar kii moo ñu him kii moo ñu matal na xaqi boromam set na ci xaqi moromam matal na xaqi sëriñam sangam ba mooy borom këram looloo waral a munoon ci moom maam astu lay gan ji doom dawaa ji ma moom fay dum ngir moo gën ca moom maam astu mi ay gànjaraam la jaay jëndee ko am njaram jaayante ak borom këram matal ko làqee ngaramam moo liggéeyal borom këram ba am tiraanga am ngërëm tajaamu buur bi boromam ba tax na du gis moromam jox na ko léppi xalalam ngir doom ju baax xam barke xam waaye jëmme barke xam la bale am meraar jee xeyaatam maam astu jànka mooy ngaram xayma ja foor na ay lamam duñ ko xaymaa ki përëm te duñ ko jaaye ay dërëm maam astu jànka fam soso am nen ca ñoom bu ca soso mooy junne cuuj ba ca soso te duñ ko xayma ak lem sa sot njaaraama soxna as sa yow sa doomi doom ji foo taxaw ci dun bi fekke leen ñi raw yaa barke njànqamaa la naw mamastu jànqa yaayi baay ñes kii bàyyi doom yaa seeni baay moo foor garaat ko we medaayi ngir mastadin mbaa wax lu hay mam astu moy nawet bu bes lol lim boxoom na sak fess noran bi kif lekkal mu res dembulon amna lu wees mam asta moy yaayi ka raw ka weeca gaayane ka raw ka boole ñaari bum ya raw mu melni so wakam ka raw sariya toog ak ilmu ak ak rusdu ak wilaayatu ci jenni yaay ji mooy setu maam astu jànqa taarixam xellente hoon ma gis ku ba nettali leen ay waxam ci ay xibaari sax-saxam man dégg naa na ak ndawam njànqa da daan muuru ba mag ñi naan kile mbiram ak nim ndawee daf ñu xëlëm te daawut foni ay gune da daan sikkar fu mu mën a ne ngir xutbu fu mu war a gane fokk mu doon fu mën a ne kenn mas sa gis maam as sa wax ci kaw ci ay sikar la sax te mos sa reeba rek ko sax te mos sa yandoor ngir na sax sangi jigéen yiñ fi xamoon ci dun bi yaa xaw fiñ xawoon mel nañ meloon def lañ defoon ngir jant fenkaan moo soxoon rijaal ya gën juróom la woon yónnantoo saabaam ya woon ñeent baax ñoon toon xam na juróom la woon juróom bennal na leen ibnu Abdul Asis ka royoon ci mbaata fonk leen te tànn seen yoon topp leen juróomi soxna yi itam ñoo gën ci fii ñu jëm maam Assa roy na leen ba xam ku ñëpp nawloo moom itam Xadija toog fatimatu haayisatu ak asiyatu mariama ñii jël atu maam asta mooy saadisatu juróom bennal na leen ba tey ba tax na boo xëyee da wëy jigéen ñi baax ñi honte wéy wayoo ko woowa way du way maam astu dongoy sëriñam bu baax ba xam nañ njëriñam bagaanu soow yaa karawam njaboot ga xam nañ aw ñamam mooy yaayu mboolem ndongo ya toggoona fon maag togg ya toggoona wal ya soq ya toggoona ron maag coono ya te mastafaatal waxtu wa ak wirde waaw wa sifa wa te fonk lool wa lii wa maam astu jànqaay royuwaay ci yoonam ngeen la waay bu leen ko séentu raw na sa doom ji géej la duñ ko ŋas siggil na gaaya sant ñas te toolu diina moo ko ñas banoo ni diina xëy mes sa doom ji njànq moo musal ruu yu ci mbugal setal na seen tilim saxal na leen ci ñuy jëfee ndigal maam astu jànq yaa fi xam koo xam ne xam ko doy na ndam sangab araabi ak ajam yaa suri san yaa mën a jam sëriñ si buñ teewee fa baay ñaamel ni ndongo ñaani doom siri say barkelu ca moom dikkin ma ngir xam cëri ba baay juddoo la sunu abdul ilahi ñas maam assa yaakaar nga muy imaam man dogu naa ta man taraam fati moom la baay wax liir booba ci lalaay rijaalu xay yaa seeni gaay nangool ka baay moo formé jamaano bi ab saayiram yombal na mboolee mi mbiram waa borom jamaanu duuguram dikkam yombal baatinamam sa ji mooy xutbu samaan bëwrul buuri kenn lomoy ci géejam fay fanaan lu dul ci suufu balaalil asamaan sa ji mooy xutbu samaan walam yaqaf jawra zamaan mooy rabbu am nen wa amaana sa ji rek moom lañ fi xam mooy nit ku ñuul ku naari gëm di ko dagaan di dem këram di tër bi yoo ko xam ngërëm liñ gis ci bay ci xeeti xam xam ak wilaaya mosta xam gëstul ba xam ku mel ni bay ñes yaaram yi kuñ jiital fa xam sa doom ji fu mu gane mooy jiite mbooleem ña fa ne baa doolo buur nit ak jinne jigéen mag gune wurus la yaa doon sëdëfam jagal la yaa di masriqam yow kenn njànqa lañ fi xam ku meññi mboon mu kenn dut xam sa mboon mi mooy tiitër ci moo waral xammel ni saam ñooñ Moustapha mooy seen imaam yaa fis ba gooy naay doon samaam bày yaaram la xaas la garna la bu tull tull kenn la ku yàlla buur tànn la te kum defal la taxawlu leen taxawlu naa di ñaan ci yàlla rabbana mu tàggatal ñu haddina hallan mu may ñu haljana ci barke bay ci barke maam abdul ilaahi barke maam haa isatu janqa wassalaam ala nabi xayril anam bàyyi nooru ñas lay way moo de dama ne bàyyi nooru ñas li nga am ñas li nga am doomi soxna dootu ko am su diina bi tey bàyyi loolu yàlla way moo di xaw su bu ba wax doota xaw da ngay wërërër bàyyi loolu yàlla way moo di xaw su diina bi tey du ko bañ yaa ngi doon a wow bàyyi loolu yàlla way moo di xaw su diina dama ne niiru mag la kenn du la bañ gerte yaa ngi doon bëgg a wow bàyyi loolu yàlla way moo di xaw su diina dama la kenn du ko yaa ngi doon a dama ne sol nga soose sol tukulóor sol nga naar yi fas yi fi raw bàyyi lóoru ñan lay way moo ne xaw fi di dama ne sol nga soose sol tukulóor sol nga naar yi fas yi fi raw bàyyi lóoru ñan lay way moo ne xaw fi di na kenn du ko bañ gerte yaa ngi doon bëgg a wow. bàyyi nuuru ñan lay way moo di xawlu diina dama ne bismillah yi may bëgg a tee way ki raw ci diina bi tey tajul aarifiina bi ñas laawu buur bi mooy ki lafal. bàyyi nuuru ñan lay way moo di xawlu diina diina dama ne saa nekk rek xalifa tànn caw rakam ne ko yéegal ca kaaba yàlla gañan laawu ru seexa ma ko wax seexa wax na baayama wax kum dayul lu lay war a doy dama ne Cheikh wax na baayam a wax kum dayul lu lay war a doy dama ne Cheikh wax na baayam a wax kum dayul lu lay war a doy dama ne képp kuy jawal wala ngay jóg di way kaay ma way liggéey raw sang baa ngi moo way dama naa tey ma dellu wax fi lu rëy ci wax la bagaañi xamul xam ne min ka mooy ki fi raw ndax gëléem suraay waru koy jay mu dem du suuru ju ñay loolu moo waral ñi fi ne kenn du bàkku jëm ci ci yow dama ne loolu moo waral ñi fi ne kenn du ci ci dama ne loolu naa ji ñoŋ ya dakku la kookoo di diina ji na déglul ma dellu bàkk ti mbar Baay Nuuru Ñas lay way Baay Nuuru Ñas lay way ku ñas laay way maa ne xawsu diine ji tey maa bëggoon a mel ni ki baay maa ñu am ku mel ni ki baay maa bëggoon a mel ni ki baay maa ñu am ku mel ni ki baay maa bëggoon a mel ni ki baay maa ñu am ku mel ni ki baay maa bëggoon a mel ni ki baay maa ñu am ku mel ni ki baay waaju mel ni baay du fi am dootu fi am dootu fi am waaju mel ni baay du fi am dootu fi am dootu fi am waaju mel ni kii du fi am dootu fi am dootu fi am waaju mel ni moom du fi am dootu fi am dootu fi am bu nu yoomu dal dala fay loo ko ñaan mu dal dala may dama ne boo jógee da jàpp ci baay muy hadis bi téere bi wax. dama ne boo jubee mu dolli la sawku nga dellu sàkku ci njub. ay bu dëngee mu def la ragal rek mbon gi nekk ci yow ka sawaat ci njub na la dellul te jaamu yàlla bu wér lépp loo defoon ci lu ñaaw laa u rabbi far na ko tey. dama ne jël yu kase ko xam-xam mu di ab xaadim jal faqir ka def ko risaas bàyyi nuuru rek ko man dama ne mbër yi fett bat aka daal dellu leen ca làng ga te jéem a toog ki jaaji ndam la min ko yóbbu na ko dama ne seeni bàkku duutu fi saf doomi bay ju nàmp gilam man ta tax mu àttane ax ah, ak wilaaya kenn du ko for dama ne don xalifatu sa baay doon ndam ci diina ji tey doon Moustapha ma ca ma di diina loolu mooy xalifa baay googu may mbindee bu ko doon da billaahi kenn du si jot wante yàlla mooy ki ko da bay la rangal yow ya garaat dama ne am na mbir yu rëy fi bay def ci wàllu réewi hijaas dama ne gañi bañ dajee ji fa màkka ku nekk def discours bàyyi nooru ñas ba nga kàddoo la xel ya dal dawe dem dama ne buuru màkka ñëw na ci ci bàyyi ñaan ko wér da a siikar loolu mbir la kan ma su koy def billaahi bàyyi ko def bàyyi dem na réewi sin ñi ne nañ laaj siiqu bur bu fi ñëw waaju ñëw na jàkk ci bàyyi dootul laaj danaan na mu naa maam bàyyi dem na faa siyaara ji seex loolu mbir la kan ma su koy def billaahi bàyyi ko def dama ne san ka ñaan na tax duñu wax wante yàlla def nañu gis na say karaama feeñ na fekk ay loolu wóor na ñëpp ko xam li mu doon war gi ñëw gi na las rooy tiit ba xol yi la dem dama ne ñii di ñaan ci seeni kurus ñii di ñaan ci seeni xaram ñii di xëy di wàcce ay kaamel te ñaan ci jàkk yi kay laahu buur bi bañ na du taw lu ko def sarka ñaan gu rëy ga ca ñaam ak bindaa bu rëy ba ñu gëm loolu moo waral lu ñu ñaan lànk bañ na du xam yaa ki màtt yaa war a ñaan yaa taxaw fa màkk da ñaan laaw buur bi daal dala may niiri doote waa ma di wan. 66 la gox yëpp a ñàkk na wer Saloum rek bu ba desal. 66 la gox yëpp a ñàkk na wer Saloum rek bu ba desal. 66 la gox yëpp a ñàkk na wer Saloum rek bu ba desal. inna kan maa أنبياء ارسل أنبياء بر سرنا وسنائي سمس رسدين واهتداي جنة القلب تداي لملاسي وشرائي دائما في كودادي ودكاري وفناي هم قلبي طال وجدي وسفيري وبكاي وهنيني واحتراقي في صباحي ومسائي إلا إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله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 bàyyi soppe yi bàyyi njaboot gi bàyyi soxna yi bàyyi téere yi bàyyi daara ji ñu ne ko bàyyi foo jëm mu ne xusaynu man awjaba sayri ila tilka alqura xasiyata an yudallala yàlla ñu ko yàlla fayal dañuy jox nag kenn ci njabootam gi bugguma sàqar ñi lañ ci jàmbur <laughs> oustaz Baye Mar nga xam ne sëriñ bi moo ko wakiiloon bu sëñ bu mag bi jógee ba dem mu jox ko moom mu nafaraat ak sama kalaas gi nga xam dañuy jang waye ci rom sang yu yi Seydi Oustaz baymar al microphone bayne nay dëkk bismillah jere jërëjëf tante bi yeb tay coloré la yow itam fedd li nga sa coloré yak sa équipe ñi ngi ndokel kep ko xamne roné na bi ak ku téwon ak ku bëgg a ndax ñëpp a ngi ci biir Cheikh Mahi daf ñu wax ne suñ tànt bi tey malaaka yooyu nga xam ne ñooy def siyaaxa te malaaka yi buñ jógee di wër lu baax nu ñoo romb mi dina bàyyi de ndax góor ga dafa waxoon ne buñ déclaré woon ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana wàcc tey ci kaw suuf moom Medina lay fanaan di ko nekk kon mu ne Cheikh Mahi nee na malaaka yooyu bi daaji si kër bi jógee rek lam ñépp ñëw nañ te itam seen rapport bi ñuy yóbbu Cheikh Mahi mu ne suñ demee yàlla daf leen di laaj ne lu ngeen gis ñu ne ko ay say jaam yoo xam ne ña nga daje di la tudd di ñaan seeni soxla mu ne ko lu ëpp soxla ci lu gën ëpp njëriñ lu gën a ëpp solo ci lañ doon ñaan mu ne ko ñu ngi lay ñaan aljana di la muslu safara mu ne ndax gis nañ ko mu ne déedéet mu ne may naa leen seen càkkute fi yépp baal naa mboolem ku nekk ci tànt bi ñu ne ko waaye dafa am benn kàccoor boo xam ne de moom ci njuba di rek la ne woon ba muy tërëf nag bay ñibbi taxaw fa di yurndoo te séenaale nañ ko kooku moom bokk ci ndax ci leneen la ne woon mu ne ko ñooñu moo wax nga xam ne ñoo nekk ca tànt boobu ku toogaaleeg ñoom ak loo mën a def baal naa leen kon ñu ngi ndokkeel waa tànt bi yépp waaye manto bi Cheikh Mahi sol suñ baalaajow sëy na ku bëri ay manto la parce que ñun ñëpp xam nañ ne bët bu set mën naa sol ñett ñeent waaye manto yooyu ni sëñ Mahi solee manto bii tey mi ngi amee yeneen manto yoo xam ne ñun ñépp kenn ku ci nekk am na boo xam ne war nga ko sol ndax yaru yarubaay la suñ gisee si kër siy jib góor daanu jigéen daanu malaaka yi daanu jinne yi daanu ñépp daanu te daajam la dañuy xam ne ndigal dafa am solo bàyyi ci baye bi la daan toog oo ko oo baye Omar Roqi baye ndawam yooyu waxambaaneem yooyu <clears throat> ne leen si kër leen tey daaj leen daaj bu leen neex su ngeen daajee lu ngeen daaj ma tudd suñ bàyyi alaajoo seenu daaj bii la daajoon keroog ci ndigalal baay moo tax bana fi dara turu yàlla woo xam ne bu ñu ko yëkkatee xel du daj yàlla alaajoo seenu lay daj te booba la daj yàlla loolu moo ko fi bàyyi mooy daaj bii doon daane ñépp bàyyee ko joxe ndigal ne daaj leen moom keroog daaj bii la daaj bi daaj nag mooy bi mooy bi mooy bi mooy bi xalangal ñëpp mooy bi tax góor gi ci am mu ngi nii mën ta xiqi daaj na ko ba gaa yëpp daaju mooy loolu ndigal moo am solo parce que bam ne leen si kër leen lu ngeen kër ma tudd ko ñu si kër mu ne tawaaju dangoog ñu banyak mu ne nangam ngoog bañ àggee ci shahadu ñoom ñëpp ñu xalangu comme ni soxna si xalangoo suñ tante xalangoo ko góor gi xalangoo ko shahadu ja moom ca la géew ba tasee moom keroog daaj bii la daaj waaye dafa daaj yeneen daaj yoo xam ndaw ñi war nañ koy roy gis ngeen Baye boo gisee ma manto bi sëñ sol yeneen mantoong fi te kenn ku ne war ngaa natt bi jag ci yow muy góor muy jigéen muy ndaw muy mag parce que Cheikh yi daf ñuy wax ne ñi nga xam ne ñooy kàngam yi fi nekkoon Cheikh Omar Foutiyu Mame El Hadji Abdoulaye Cheikh Ahmad Bamba ñoo ñëw fi ba dara politiciens yi nga xam ne nag ñoom dañuy wax lu ñu dul def ba mukk di def luñ dul wax ba mukk ñooñu ne na bawuñ fi dara waaye ñii ñoo fi dara dara suñ papa alaaji seenu moom bana fi dara ndax bana fi tànt bi bana fi daaj bi bana fi kóllëre goo xam ne jar na Cheikh Mahi xëy def loo xam ne kenn xamul kañ la ko gëj a def solom bii man de benn rek la may fàttali mooy benn saan boo xam ne bàyyi daf ko mayoon benn mbubb mu teg ko fa lu yàgg benn bis mu wattu ba mu rafet mu sol mbub mi jaar ci baye bi di jàll bàyyi ne moyeen kee kan la ñu ne ko maaxi mu ne sama maaxi naaw mu ne xool leen ma mu ñëw mu ne ko xay yow ndeke góor xiw nga mu ne ko sëñ bi góor xiw boobu nag dañ koo soxla waxtu ne waaye ñu ngi sant yàlla tey jii bi nga xamee ne suñ manto bàyyi alaaju sëñ nee na bi mu ko solee lim ci yëg yëpp ñun ñëpp képp ku sañ siwutoon bëggoon ngaa daw dugg sañ si ji manto yi nga xam ne moom lañu ñu bàyyee xam nga ne naa leen bi sëñ maaxi joxe ndigal ne naa commentaire man àttanuma commentaire u sëñ maa yi ndax fi mu yéeg ak fi mu wàcc moom nu noppi rek noppi rek mu jeex waaye dama leen wax léegi ne leen Euh, baylaaji Babacar suñ maam bi mu dénkee njabootam baay kóllëre gi nga xam ne moom la ci baay wone te loolu mooy li gën a tuuti li ma leen wax tiim ndab suñ baay sama baay Mamad Zeynabu moo ma ko nettali nee na da baay dafay dugg di beesal njàpp ñëw fekk ndab li jeex mooy leen yéen ana añ bi ñu ne ko añ nañ ba pare mu ne yéen añu leen xaram lëmm la yónnee tegal leen ko bañ suur mu soog a dugg néegam keroog lañ gëj a xiif ndax mosuñu woon a xiif ndax xam na fañ ne woon waaye manto yi nga xam ne moom laa bëgg a wax mooy boobu moom nga xam ne Baye jàngale na ko keroog muy ñeme jox ñem manto boobu alxaaji Ousseynou daf ko soloon te keroog bi mu koy sol wax dëgg yàlla wetoon na ci ci mirina gii boolam boobu nga xam ne moom lan daan taaj boroom kër yu bari tey ci lañ daan sukk te daan na dem ba nga xam ne su yàlla ji tawee ba nit ñi mënuñoo añ si su ma yaa jaxate ne na ma mënoo ñë balaa ñëw il faut nga taaj si ndox mu sedd ak ti woo njar taaj boolu ceeb te ñu ko fekk suñ tànt yépp ci lañ newoon buñ demee ba yàlla ji taw amut kenn ku mën a ñëw ci ñi nga xam ne ñooy waxambaane dëkk bi te ñoom ñépp xam nañ ne bu tooyee fii la bu neexee fii la moom ci boppam daf daan taal otoom parce que lu tax loolu beneen manto la max bi bàyyi amee oto moom bokk na ci njëkk am oto ci dëkk bi oto boobu la daan taal di wër waxambaane dëkk bi ñi nga xam ne ñoo daan añ ak moom bañ ñëw mu indi leen ñoom ñëpp ci ron màngo màngoo fi ne woon ñoom ñëpp ñu añ kon donn lu baax gis lu baax donn ko jëfee ko bàyyee ko ndaw ñi boobu manto itam wax dëgg yàlla mboolem borom kër yu bari ci Medina Baye fàttewuñ mukk jotaay boobu te kon gannaaw ki ko yar loolu la ko yaree ba won ko ko ci ndab lum tiimoon moom ba mu jógee tëri na ko tëri bu rafet boo xam ne dëkk bi yépp seddal nañ ko ko kon yooyu dafa nekk di ay manto yoo xam ne sëriñ daalo bi dafay roy ci sëriñam te moom yàlla daf ko nattu ci coobare gi ndax xam nga ko am baay ju eb ni maam alaaji Babacar nga xam ne su waxee fii ci àdduna maam alaaji jóge àllaaxare néew na ko wax nga dëgg baay jooju koo xam ne mat naa mën naa tax nga nekk ki mu nga ngay kiiraay ba gisatut baayam mais ko keneen la te wax jooju bàyyee ko bind ndax ne na keroog ba may dem mag dem ci ki nga xam ne moo taxaw suma taxawaayu baay di alaaji Babacar tàggu ko ne ko mu ñaanal ma te dénk ma bokk na ci lim ma dénkoon mais lim ma bëggalee gën a dëgëral sama yoon yëkkati sama moral daf ne ma boo demee ba jaaxle da nga dajeeg bay mama laa nañ daan wax bay moo indi itam waxtoo mag mag bay looloo ko fale li nee na bi mu demee ba ci digg géej gi miir jot ko nee na la gis góor ñu rafet rëy taxawaay lool mais ñaar la ca xàmmi mooy Cheikh na Ahmada Tidiane ak Mamalaaji Abdoulaye maam alaaji Abdoulaye ñëw roof loxoom yi ci loxoy bàyyi yi tikk ko ne ko la la alaaji Babacar waxoon dëgg la kooku ku doon kiiraayam wax dëgg yàlla coobare yàlla gi rek moo ko mat Baye Malle daf ñuy nettali nee na euh, ku teel a man boppam la loolu beneen manto la nañ ci góorgóorlu ku teel a man boppam bi muy nettali taarixu Medina dina baa ngi ci internet yéen ñépp mu ne ceroog la jëmbat xay gii daal na suñ baay euh, euh, euh, baaba roqi ne ko jëmbat dee ko suuxat bu dee nga dee keroog la taxaw daldi ne fii ba mbadaxun ku uutut kër sa kër dana sori te dana seer ñi amee 6 million bugg fii boor diggante feek mbadaxun te mënuñoo am xam nañ ci dara ñu ne ko bàyyi fii day tan bi la mu ne leen yéen a seen tan man ay seng rek laay seen sengi bàyyi moom ay étage la booba la wax ne moom alxaaji Ousseynou ku teel a man boppam la bi muy nettali taarixu na la nettaliaale taarixu néeg boo xam ne moom sëñ baay defoon na ko ci biir kër baay defar ko mu taaru taaru boo xam ne comme ni ko Cheikh Maay waxee nee na moom bee du ko yàqal bii mukk ndax ñaar yépp ci yàlla la moo tax foo ko fekk mu naan la bàyyi man ni ma bëggee àdduna boo ma xëyee ba téye son seetu beeg son faas yi waaye ndekete ci biir la sëñ Maay firil nañu ko tey ànd ak loolu yëpp ne na néeg ba nga xam ne moo fa gënoon a rafet ci biir néeg baay ba bu amee gan néeg Ousseynou la koy dalal loolu itam manto la xale yi war nañ koo roy bañ bëgg a gaaw a tekki bi mu àggee ci gaal gi bëgg dem waa daf ne ko xale nga duma la yóbbu waaye xale bu am itte ba am carte d'identité ci jamono jooju bi mu génnee carte d'identité mu ne ko xaw ma kan de waaye yow danaa la yóbbu mais loolu yitte la nañuy def yitte te itam kenn ku ci nekk li nga xam ne moom lañ la sa éducation de baas bu ko sàgganee allahu akbar sa éducation de base bu ko sàgganee alquran ji nga xam ne moom la yóbbaale woon alquran jooju mësta tàggook moom nee na ma bi may bàyyi di indi ci avion bi xeex naa ngir alquran ji ma ne ko lu tax mu ne ma benn tubaaba romb rek xaw ma autiste la xaw ma di këlëng këlëng ba fël suma kaamil mu daanu rek ma jóg sox moom dafa tàng kon yooyu yëpp lu ñu war a roy la kon moom ku bëri ay manto la waaye bi nga xam ne mooy bi am solo mooy bi nga xam ne mooy bii mu ñu bàyyee di laa ilaha illallah nga xam ne sëñ maaxi tojal nañu ko dara newu fi lu mooy moom te bu fi lépp jógee moo fi des te itam moom waxoon nañu benn bés ñu tëral fii niiw mu ne ma bàyyi mu ne ah, mu ne ma ñii seen seede yi dafa bëri mu ne ah, mu ne ma lii waa ji dem na bu yàgg di mu ne waaw mu ne ma lii di matière rek ñu bugg ci sonal seen bopp di mbopp mbopp bi daan na julli daan na or daan na or man damay dem de kooku kon moom xam nga ne dem jaaxalu ko moo matière rek la kon nag ñun dañuy sant yàlla bu fekkee ne yàlla may nañu wax ji nga xam ne moom la Baye waxoon ne maam alaaji Abdoulaye dafa waxoon ne li tax ñu bëgg doom mooy loo nekk mu nekk ca boo fa jógee mu continuer ko ñu ngi sant yàlla ci loolu ndax suñ Baye alaaji

kon bu fekkee ne yàlla may na ko doom yi taxaw sët yi taxaw kon mën nañ ko wax ne gàcc ngaalaama moom lim fi bàyyi dara saawu ci dara réeru ci te rawatina mu am kóllëre gu em ni Cheikh Mamadul Maahi Ibrahima Niass dañuy sant yàlla nag bu baax ci ki nga xam ne moom ci la jeex ci moom mooy Cheikhul Islam Haaj Ibrahim parce que daf ko matee ndax kenn mënu ko woon a jur ku mooy Mamalaaji Abdoulaye koo xam ne itteem mooy jur Cheikh na Ahmada Tidiane amul beneen yitte dafa am benn taalibeem bu nekk ci kër gi kàngam la dugg kati xalwa la dugg dugg dugg ba mu yàgg mamaay sa ñëw fëgg bunt bi ne ko hee mu ne waaw ah, mu ne ko yow génnal wala nga ñaan leneen li ngay ñaan ñaan naa ko ba jot ko xutbu la doon dox <laughs> ñuy wax xutbu xamuñ luy xutbu waaye kooku am na xutbu militaire moo mujj nekk général doomi kooku moo mujj nekk général ja bépp pentagone waaye koo xam ne jur Cheikh na Ahmed Tidiane mooy sa hitte nga dem ba faas ñaan doom yu baax li waa ji doon wax ne bi muy tagg ma walaaj mot Zeynabu ne benn bu gën fukk ak juróom te ñëpp jàng ak juróom te masta manqué am juróom ñoom ñëpp noonu lañ mel ba mu leen di ñaan màkka la demee waaye bi mu soxlaa nag jur Cheikh na Ahmed Tidiane xam ngeen ne màkka moom dañoo jeexal keroog bi ñu robee yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loxoy gaa yi ko doon rob takk suuf faatimatu jooy na leen yéen a néeg def ngeen ko keroog la nubuwatu jeex takk mu des fi li nga xam ne nag mooy wiraasatul ya di wilaayatu te loolu arab yëpp d'accord nañ ne sow gii la nekk looloo indi woon gént ak maawasu jànq gi ki waa ji doon tagg léegi teen bu xóot te nduwu kowe mu ngi ëmb sëriñ bi ci weeram wu njëkk nettali ko bay mbay bay mbay nettali ko Seydi Aliou mu bind ñu jàng weer wu leer nañ mat sëkk penkee penku yónnente yee jeexal nañ daanu si xarfu maa su jànq moo amee mbir mi loolu leer nañ te bu ko gën a leeral mooy keroog ba nga xamee ne nu ba watu jeex na bépp ba ba xutbul xutbu yu ñëw nga xam ne moom kenn moo amee dinaa moo bu mag bi ku branché wut ci moom doo am mu Cheikh na Ahmada Tidiane kooku keroog ba mu ñëwee ba léegi elimaan buy julli farata màkka lay jublu waaye dara desut nag lu mooy naasiril xaq bi xaq mu jublu xarfu parce que xarfu ñoo ko yor looloo tax elimaan di jàllar bi ko waxtu wuñ jullee ba pare di jublu xarfu parce que xarfu la bàyyi ne loolu nag may googu moom la yàlla dimbale suñu bàyyi alxaaji Useynu mu ne ba yàlla dimbali ma ba ma xàmmee ki nga xam ne mooy barahama ibnu abdullahi ak barahama abdu zaati mu ne bu njëkk mu ne waaw mu ne sama benn baay bu ndaw la woon rek léeg-léeg mu gëdd ma sax ma taxaw daal di funkale ko mu ne ma boobu man ibnu abdullahi rek laa gis waaw waaye keroog ba ma xamee ne mooy bàyyi mbooleem roxo yi suma roxoog bàyyi sax mooy bàyyam ndax maa su jànq ne na ko ndax mën naa laa wax li la nit ñi ooyee mu ne ko lan mu ne ko ndax mën naa laa wax bay mu ne ko xaw ma ndax mën nga ma koo waxam déedéet waaye may bàyyi mboolem roxo yi kooku nag ku yàlla may mu bëgg la jegeel la xamal la tëbb la jox la jox la ndigal ci baat bi nga xam ne yonent bi nee na man ak yonent yépp ut si wuñ lu gën a rëy amuñ lu gën a rëy amuñ lu gën a baax laa ilaha illallah loolu mu jox ko ci ndigal mu di ko def ba jóge fi ay doomam di ko taxawee Cheikh Abdullah ñu ngi lay jox ndokkeel mu jëm ci Cheikh baay mi nga xam ne taxaw na fi taxawaay bu rafet léegi ak jëm ci Mouhamadul Amin Moustapha ñoom ñépp Cheikh Tidiane ñu ngi lay ndokkeel ci xatmu bi Mouhamed jërëjëf wax dëgg yàlla lii la maam alaaji waxoon ne lii a tax ñu bëgg doom boo amee doom lépp loo nekk mu nekk ceeg yow yéen a ngi ci neewoon ak moom bi mu jógee continué ngeen ko te continué gi rafet na ñi ngi nuyu suñu yaay yëpp suma yaay euh, jaxate ak suñ mboolem tànt yi di nuyu suñ mbokk yu jigéen yi suñ jigéen yi Sayda Roqiya ak mboolem yi rakkam di leen ndokkeel parce que am na ñoo xam ne am na ñuy bàyyi ñu jógee fi dem te bàyyiwuñ fi li fi seen bàyyi bàyyi ndax laa ilaha illallah la fi bàyyi bëgg bàyyi la fi bàyyi euh, def lu baax la fi bàyyi ñoo xam ne dëkk boo xam ne ndam daj kenn ku ci nekk ameel nga ko njukkeel ak teraanga loolu la fi bàyyi kon dañ ci sant yàlla bëgguñoo guddal parce que gis nañ ne tey jii euh, ki nga xam ne mooy kebe am na leneen loo xam ne ñëwagut parce que bàkka la gudd ñu fahaasi salaamun te yaakaar naa ne nit ñi bëgg nañ koo dégg te yaakaar naa ne ñi ngi fi amee euh, euh, kilifa goo xam ne xarit la bokk la sëriñ bii toog borom kaala gu rafet gii moom ci boppam yaakaar naa ne Cheikh Abdoulaye bu ci kanamee dana ko jox kon Cheikh Abdoulaye ñu ngi ndokkeel bëgguñoo guddal ndax sëñ Maaxi wax na lépp waaye dama doon fàttali rek ne suñ bàyyi lim fi bàyyi ci ay manto kenn ku ci nekk am nga boo war a sol lim ñu wax nag ne ba Pape yi dafay ñaaxee ndax moom xam na ne tey la gën a taaru ci zahir kon mbir mi tey la tànt bi gën a taaru kon li muy wax naan góorgóorlu leen mu gën a avancé loolu ñaax ñu la firiwut ne tey baaxut waaye dafa wax ne mu gën a baax waxtu wu nekk ci lañ ne kon loolu ñun ñëpp nañ ko dégg ñi ñëw ak ñi ñëwut ñi ngi ñaan yàlla déwén buñ koy def mbooleem lum jur ñu teew fii ci tànt bi kenn ku nekk li nga def yàlla fulandeel la ko ci sa njaboot barkeel li nga xam ne mooy gannaawam ci zahir ak ci baatin kon Cheikh Abdoulaye dañ doon barkeelu rek yaakaar naa nañu joxaat kebe ndax moom yaramam tàngagut ba léegi ndax tuddagut yi ci des